téere yi nga xam ni moom la ñu baaxoo joxe at mu nekk ñu bàyyi ci xel bu baax a baax defe naa moom la jàmbaar ji di dajji ni ngir mën koo tasaara ci mbooloo mi euh, téere yi nga xam ne itam jaar-jaar yi maam Cheikh Issa la sama caméraman mu xëccal ma téere bi bu baax ba yi mën ko gis sëñ Mouhamadou Lamine Dieng moom Cheikh Abdou Salaam moom Cheikh Issa def ko muy jaar-jaar yi maam seex isaa Dieng ci wolof wesar ak woy téere bi mi ngi nii ku ko soxla itam mën nga dem fële ci taabal ji ci ginnaaw beneen bi mooy masaalikul jinaan boo xam ne daf koo woy ci woyi wolof moom tamit mu ngi nii ba tey ci mbooloo mi ku am caabi bu réer caabi bii nii dañ ko fi indi léegi boroom caabi bi ñaari caabi la ak benn coupe ongle benn caabi xànjar bu përëm ak beneen caabi mi ngi nii xam naa bu fekkee borom mi nga ñuy dégg mën na ñëw jege si rek ñu jox ko ko incha allah léegi nag kon mbokk yi dañuy dal nag soobu ci waxtaan wi ki ñuy bëgg a jox kàddu gi jotaay bi miin na ko moom it miin na jotaay bi boroom xam-xam ku yaru ku dal koo xam ni itam yëngoom ak dalam lépp yitteem yépp benn soxla la am muy Seexul Xadiim bañ na ko ba day faral di wax sax ni tàyyi naa nekk di gëstu ji leneen lu dul sëriñ bi nga xam ni jàpp na ni moom bi ko yàllay bind sëriñ bee taxoon mu bind ko yemul ci jàpp ko daf koo wax yemul ci wax ko daf koo jëf muy sëriñ Gànna mi ngi nii toog euh, moom la ñuy jox kàddu gi mu amal waxtaan wi Cheikh saa jenn ak tarbiya kon sëriñ Gànna bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal cheikh muhammadul muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yëpp ak mbooleem jullit yi di nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoo woote jataay bu am solo bii di leen ci ndokkeel di leen ziyaara bu baax di njabootu maam Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu di nuyu ak a ziyaare Cheikh Abdou Latif nekk ci bopp njaboot gi ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko fi lool te wéeral ko waaye it di nuyu njabootu Serigne Balla Jeng gi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi di nuyu xalifa ba Serigne Mourtada waaye di jël sunu nuyoo di ko teg ci loxo Serigne Saalihu Jeng moom Cheikh Abdoul Karim di nuyu waa jamaaya bi yëpp di leen ndokkeel ci bis bii nga xam ne baaxoo nañu ko taxawal di ci fàttaliku jëf ak liggéey ak taxawaayu maam Cheikh Issa Diène at mu jot ñu tànn ci ab tomb boo xam ne des koy mën a waxtaane ngir mu nekk njariñ waaye mu mën a nekk ab yóbbal boo xam ne des na ko yóbbaloo at mu jotit waa jamaaya bi jël kenn ci mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo taqoo woon ak sëriñ bi te nekkandoo woon ak sëriñ Balla Fally ci keppaaru Cheikhul Khadim te ñu amoon ay jaxasoo yu rafet ñu jëlaat bis bi duppee nga xam ne dafay mel ni rek defarug sëriñ bi mooy moom lañuy ñuy fàttali di ko waxtaanewaat euh, mu mel ni it tomb bi ñu tànn tey muy tarbiya waxtaane ko mooy li nga xam ne moom la Cheikhul Xadim jotoon ndigal ci yenent bi sallallahu alayhi wa ci mu tarbiya ñoñam kon yar leen tàggat leen mu mel ni it kon noonu mu tàggate woon mag ñoo ñu defar leen kenn ku ci nekk la nekkoon ci sëriñ bi tam mu def ko ci yow loola nga génn yaatalaat ko ba mu tasaaroo ci àdduna bi yëpp mu mel ni it euh, jëmmi tërbiya nag dafa mënta ñàkk boroom xam-xam yi dañuy wax ne doomu dafa am ñaar yu ko composé benn bi nekk ruux te ñu bind ko ci ban lii bokk ci aalamu sufla lii bokk ci aalamul oliya mu amee muraadafa ak xol bi doomaadama bu fekkee ne ruux moom dafay yéeg waaye dafay laaj tàggat ci jëmm lañu koy jaarale tàggat ko bu fekkee ne tarbiyewuñu doomu aadama bi tàggat ko dañuy wax ne ñaar dana waral ñaar mooy mu umpule boppam ba woote lu mu warul woote ci boppam mel ni daroon firaw na nga xam ne egg na ci woote ak rububiya wax ne ana rabbukumul aala walla mu umpule boppam ba jaamu lu mu warul jaamu kon mënta ñàkk euh, ci doomu aadama bi ñu tàggat ko tërbiya mooy tasgee nit ki tasfiye ko tàggale kook al aada daaxiliya te mooy noonu biir yi nga xam ne doomu aadama dafay ànd ak moom te mooy banneex bakkan àdduna seytaane looloo tax bu dee ci tasawuf li ñuy tudde al ihsaan manzila al muridiya tey bu ñu la doon laaj lan mooy manzila fil islam da nga naan al ihsaan mooy manzilaam ci islaam waaye boroom xam-xam yi wax nañu ne mën su caa egg bi duuni tërbiya nga xam ne kon nit ki mën na góor góorlu ci imaan mën na góorgóorlu ci islaam waaye ngir mu am ihsaan bu mat dañuy wax ne mënta ñàkk faw mu am dalilihaat moo tax ci tasawuf dañuy wax ne farata la ci murit bi mu am sëriñ bu koy wam mat di ko tàggat ngir mu mën a yegg ca melo yooya loolu it mooy tax xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama borom bi subhaanahu wa taala moo ko tàggatal boppam waajalal ko boppam génn ci moom lépp loo xam ne war naa nekk ab gàkk génn ci moom lépp luy xëll ba mu nekk ku set wécc ku leer nañ borom bi subhaanahu wa taala na teg ko ci kanam nit ñi ne mooy exemplaire bi ma leen jox wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana waaye wóolu ko ca melo yooyu ak jikko ba tax mu ne yonent bi salaahu salaam moom yi nag laa leen wax ne lu mu leen andil na ngeen ko jàpp waaye lu mu leen tere yi da ko bàyyi wa ma aataakum rasulu fa xudu wa ma nahakum anhu fantahu ki yàlla jël ba tànn ko mu nekk exemplaire bu mat boobu noonu mu ko boroomam tàggate te mu nekk delluwaay bi noonu la tàggate ay saxaabaam yar leen ci doxin woo xam ne wu mat sëkk la te yonent boobu nag alayhi salaatu salaam ci wàllu tërbiya Serigne Touba ko ca donn tërbiya nag dafa wuuteek ndax dañuy wax ne ñetti xeeti sëriñ ñoo am sayxu taalim sayxu tërbiya sayxu tarqiya jëkk sëñ bi nag sayxu taalim moo gën a yaatu muy sëriñ buy jàngale di am ay àllarba ki dibéer man nga am barkeb jàngale ak mbooloo mu la topp waaye defar nit moom loolu boo demee ci waxi Serigne Moussa Ka moo nu ko leeral Serigne Moussa Ka dane ngirum tërbiya ngi xew ci sawu jant yaa ko def fajuk aajo yaa tax nit ku ñuul mus ko fi Touba ku ciy bañ a ànd ak Bamba xam naa da koo xamul ndax gumba gistu leeru jant yéem naa Serigne Touba kamaalug rasulullahi mooy mat gu duutu sew matuk sayidil kaw nañ di leen jox Serigne Touba giñoon naa ne yaay wuutaatu njol màkk ci defar ku koy sikk sàkka réere jagleeg Serigne kon sëriñ bi moo doon yonent bi ci tërbiya defe naa it am na beneen naar bu ne ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fama fil jili charwak ngir nga xam ne lépp lu sëñ Tuubaa doon jox ñi mu àndaloon ci yonent bi sallallahu alayhi sallam la la bàyyi ko te moom it yàlla mi nga xam ne mooy aji yar mooy tërbiya nit sëñ nee na yàlla moom moo ko tërbiya rabbanee naa fil wahaabu ashkuruhu maa dumtu xayyan bi xawli alhamdulillahi Serigne Touba na kon moom dafa am gis yin gis am benn falsafa boo xam ne ak ruya bu mu am ci tarbiya muy loo xam ne it amit ay principe yu dëgër amit ay yoon yoo xam ne ca lay jaarale mbiram ngir nit ki mën a nekk koo xam ne dafay dund alkitaab wa sunna waaye mën a jàngale mën a jàng njàngaleem asalafu saalix ngaa yu baax ya loolu sëriñ bi daf ko indi ci mbir waaye it mu mel ni daf cay jot ndigal lu bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy manhaj bi nga xam ne moom la Serigne Touba yoroon di ci tarbiya ndax wasilaam wa yonent bi sallallahu alayhi moo ko digal ci tarbiya loolu it Serigne bi moo ko wax shafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi rabbi asxaabaka bil himma kon day mel ni ndigal la lu bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaam ñëw ci Serigne bi ngir mu tarbiya nit ñi tàggat leen loolu it moo tax objectif bi sëñ bi am ak jubluwaay bi mu amoon ci yar nit defar ko mooy mu tërbiye koo xam day nekk mu'min muslim muhsin nekk koo xam day nekk aji gëm nekk ab julit nekk aji kuy rafet kuy rafetal mustamsikun bi kitaabillah koo xam ne day jàpp ci alxuraan lépp lu muy def dëppoo ak diine am aqida bu sell bu laab boo xam ne dafay sori mboolem weddi yàlla ak nafiq ak bokkaale ak ngisal waaye làmboo mboolem jikko yu sell yu baax ya waaye tësgiye nag bakkanam ci ayib yi ba mën a nekk aalimun aabidun muridun saadiq mutaaddib mën a nekk boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam waaye nekk jaamukatub yàlla nekk it aji dëggal loolu moo tax bi sëriñ bi ñëwee indi yoon woowu nga xam ne mooy yoonu tërbiye di tàggat nit ñi ba nit ki mën a nekk ku sell ku dëggal koo xam ne it dafay nekk ku tabe waaye it nekk koo xam ne kuy jariñ boppam la di jariñ lislaam di jariñ it jullit ñëpp loolu nag doomu aadama ñeenti noon yi ko wër faw bu ñu leen éliminé wul doomu aadama bu du mën a jàll loolu nag tërbi rek moo ko war a moo ko mën a def ci nit loolu mooy bi ci njëkk mooy bakkan doon ko ne bakkan yu bari moo am dafa séddalikoo an nafsul amaaratu bi suu dafa am an nafsul lawaama am ak yeneen i bakkan waaye ñaar yi ñoo gën a aaje woo tarbiya muy an nafsul lawaama bakkan bi lay yedd doomu aadama bu nekk am na bakkan bu ko yedd boo xam ne da koy wax xoolal fi nga bokk xoolal ki nga doon xoolal say nawle xoolal fi nga bàyyi ko am bakkan boo xam ne it lam koy digal ba set mooy man nga ko sañ nga ko jamono ji moo laaj loolu kenn dundatul nangam kenn dundatul nangam ñaari bakkan yooyu waxtu wu nekk dañuy xeex bu demee ba bakkan bi nga xam ne mooy di mooy laaye biire not bakkan bi nga xam ne day yàqal doomu aadama bi ci am sëriñ bu ko tërbiya ca lay nekk ku dégg ndigal ku nooy ku ami teggin kuy jaamu yàlla kuy jëf-jëf ju baax bu demee nag ba bakkan bi nga xam ne moo koy yedd ba di xeex ak moom muy an-nafsul amaati bi suu bii wax mën nga ko sañ nga ko gañee na bakkan bii doomu bi léegi day nekk ku féttarlawu doo am kilifa doo am worma doo xam lu muy waggar doo xam ku war a jox cër du faale dara bu boobaa nag la mu koy julal dañ aadu billah mooy te tàbbi ci ak texee bi kon bakkan faaw ñu di ko tërbie moom it ci lañ leen koy tàggate te bokk na ci min haadu riyaa ji Sëriñ Tuubaa yoroon mooy bakkan boobu euh, rek mooy tax mu songu maanaam dafay mel ni bu reggee day bajantu moo tax ñuy indi xiif bu digg doomu te ko xam Sëriñ Tuubaa xam ne mag ñi daanan xëy suba ba ngoon di liggéey nga bu pepp lañuy am wala kibéeru setal ak ndox lañ koy jàllale ba ko amaatee waxtu waa dellusiwaat ngir bëgg a not seen bakkan ca nañ doon doxe ndax moom bakkanam yàlla da koo notal ba noppi xaxarti li nafsi xaxarti li hawa wa suu awel idla la suxtali siwa waaye it ba ca topp mooy ñaareel ba mooy seytaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane seytaanu jaasimun ala qalbi ibni aadam fa ida dakara xanasa wa ida xafala waswas seytaane dafa bóof ci xolub doomu aadama bu fekkee doomu aadama bi tudd na yàlla rek seytaane day daw waaye bu sàgganee seytaane da koy manee moo tax Serigne Touba bokk na ci méthode bi mooy mu indi woon ak dikir nga xam ne jëkk ñuy taalif xasaayid yi xam ngeen ne yëkkati xasaayid yi di jàng ko euh, loolu yàggul euh, ndax yoon wi li tàmbalee Mbakke Kajoor tàmbalee Daaru Salaam ba ni mu ñëwee euh, Touba daanaka ci taalif yi sëñ bi doon taalif li jëpp day jëm ci fiq ak tasawuf ak tawxiid ak yeneen yi waaye xam ngeen ku mel ni sëñ Mor Kuna Mbakke ku mel ni sëñ Afiya Buso ku mel ni sëñ Modou Xali mu pofdi ñooñu bokk na ci ñu jëkk a yëkk xasida yi di ko jàng waaye lañ daan def mooy sikar te Serigne Touba nee na xayru taami li muridi saaliki dawaamu dikri sil jalali malik li gën ci murid bi soo bu bëgg a egg ci yàlla mooy saxoo tudd yàlla moo tax daanan bokk ci di sikar ndax seytaane ci tudd yàlla lay dawee moo tax Serigne Touba daana ci tàggat bokk na ci muy bànneex bànneex moom it day réeralaate waaye ci lan lay songe mooy wax ju bari ju amul njariñ moo tax Serigne Touba bi muy tàggat mag ñi rawatina ci Touba léegi léegi daana woolu nit ba mu ñëw mu ne ko bi nga xëyeeg léegi ñaati baat nga fi wax mu ne ko nit nuyu na ma mu ne ko ana waa kër ga njaboot ga sëñ bi danaan ko bëriwut waaye bu ëllëgee na gën a néew. nga xam ne yëmul ca loola sax waaye dafa egg ci ba ñaanal boppam boromam ne am mit hawaaya yow yàlla na nga rey sama bànneex bu ma amati benn bànneex kon wax ju bari jooju te amul njariñ moo tax sëñ bi doon leen noppiloo waaye doon leen dikkarloo doon leen jàngaloo alquranul karim ba ci topp muy àdduna moom it ab noon la boo xam ne ci jaxasoo bu bari bu amul njariñ lay songe moo tax Serigne Touba indi woon li ñuy tudda onze la muy beru waaye sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na sëñ Touba ni mu daan tërbiya muy xiif ak mar ak jàng alxuraan ak dikkar waaye beru mu ne beru ga nag rawatina jigéen ña te loolu sëñ bi da cee taral boo xoolee loolu ci xewoon ci digganteem ak maam Cerno borom daaru sëñ Touba mas na ko wax na ko Ibrahima nañ bàyyi kër jigéen ñi mu ne ko man de sama néeg nday soxna Faye di laa nekkoon mu ne ko bu ma naan jigéen ñi seen ndaya tax kon defe naa ki taral ci bëggul sax yow donga bi nga tàbbi sa néeg way julu jigéen kon leneen taxul nuy wax loolu kon sëñ bi lu leer la indi lan wan yoon la indi nahju rasulu lladi ma mithlahu basharun bi bihi fustu bil mafrudi wa sunan yoonu yonente bi salaa salaam yi nga xam ne dafay yoonu leer du yoonu jub du yoonu baax yoonu farata ak sunna yoon woowu ci laa jaar man cheikhul xadim ci laa womate ñi ma àndal ñëpp waaye bi mu ñëwee it ñooñu mu doon tàggat ñu jaayanteeg moom nga xam ne bi mu jotee ndigal lu bàyyi ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mag ñi bàyyi ci wet gu nekk li tax tërbiya am solo te yéeme mooy bu fekkoon ne ki jàng rek lañ ku jàngul la ñuy tërbiya wala ki nekkul diw sàngam lañuy ñuy tërbiya waaye dañuy tërbiya koo xam ne dafa dafa dafa jàng ndax sëñ Tuubaa dane boo jàngee ba noppi ba am xam-xam wa baax da yasluku in raamal wusul ala jaddi mukamilin yax fu rasul faawu nga am sëriñ bu mat sëriñ bu lay bu lay tërbiya tàggat la ndax ku ne xam na kun kun yar te jàngaluñ ko ak kun jàngal ba noppi te yaruñu la loolu mel na ni sax ku xool ci jamono bi eh, ñu ëpp te am xam-xam moo xam ci ban côté lañ ko amee te yaruñu leen bàyyiwuñ xel ci seen kanam kilifa looy def lu leen neex wax lu leen neex def nga xam ne kii buy wax ba bu seen nga dégg koo xam ne mag ñi nu yaroon woon boobu baat buñ bëggoon a jàngale dara danoon ko woddu warmaal ko doon ko ne mën nañ ko fekk ci biiru téere di ko jàng waaye gis nga léegi nit ñeme naa toog ci plateau adduna di ko seetaan mu tudd baat boo xam ne loola am nga xam-xam waaye amoo ab yar te sëñ Tuubaa nee na xam-xam bu àndut ak bi yar nag coono rek lay jural borom ak fitna mu ne kon bokk na ci melo yooyu nga xam ne sëriñ bi moom daana ko tërbiya euh, asaalib yi nga xam ne it moom la sëñ bi doon tërbiyaat nit ñi di leen tàggat dafa limu bari na lool di leen jàngal ci ay téere ak di leen tërbiya bil xaal aw bil xaal ndax kat euh, ñaari façon wala ñaari catégorie ñoo doon ñëw ci Serigne Touba borom xam-xami tërbiya dañuy wax ne inna tarbiyata qismaani tarbiyatu bil xaal wa tarbiyatu bil xaal fal ula irshadun wa tahdibun wa al oxra imdaadun wa taqrib ñaari fan fànni xam tarbiya moo am mooy benn bi nit ki dalay wax ngay def waaye benn bi nit ki day jëf ngay xool ca moom loolu nag li koy waral mooy seyxu tarbiya bi dafa wuuteeg seyxu taalim bi ay ay ay melo seyxu taalim bi seyxu tarbiya bi dafa wuuteeg seyxu tarqiya bi ay melo bu dee seyxu taalim bi muy jàngale moom na am fasaaxa te comprendre le bi muy joxe man koo wax man koo joxe lesson bi ba nit ki koy déglu man koo dégg bu baax bu dee seyku tarbiya bi na xam jamono ji xam soppiku gi xam nga fi ne tey mën nga am donga boo xam ne yaa ngi ko bàyyi ca daara ja nga ne jëwliñ ji jàmbaar la demul dikkul fekk yow donga bi moo la gën a daj jamono ndax am na internet daj na fu nekk kon soppiku jamono yeeg jumtukaay yeeg ak bakkan ni muy soppikoo ak bakkan bi lim attan sëriñ bi tarbiya da koy xam bokkul ak seyku tarqiya kooku ruyatuhu tasidu fil amal xitaabuhu tan lil xaal mu xaalitu musiratu lil anwaari mooy koo xam ne boo ne ko jàkk rek yëg yàlla maanaam ni ngay jëlee sa téléphone roof ko ci chercheur bi mu tàmbali di tonalité sëriñ boobu di Seexu Tarxiya boo gisee da ngay yëg yàlla loo gën a jaxasoo moom leeru yàlla di gën a dotti ko ci yow ay kàddoom yi daf lay doole xaal ci aw doxinu mat kon nit ki dana defar nit ci wax waaye dana defar nit ci mu di ko xool mu mën caa jariñu mu ne it kon roy ga koy roy mu dala sopp ci ay jikkoom ak i meloom loola it dala tax nga mën di root ci bëb bi borom bi subhanahu wa taala looloo tax melo yooyu mag ñi doon tàggatoo ci kanam Serigne Touba ak wuute ay kuréel yi nu doon ndax sëñ bi ñaari ñoo ñëwoon ci moom man baayahu ala sam'i wa taa wa yatlubuuna minhu nusra wal irshad wa yarji'uuna ila ahlihim fa ya'muruhum wa yanaahu wa yansahum suma bisni lahum bi rujuu suma ila ahlihim dafa am ñooñ bi ñuy jébbalu ci sëñ Tuubaa dañoo ñëw joxe seen bopp jot ndigalul dellu sëñ bi di leen digal di leen tere defe naa bu doon ne ñenn ñi dañoo ñëw joxe seen bopp ba noppi sax fi kon ñaari kuréel la ñenn ñi bi ñu ñëwee rek yàgguñu fi tey mel na ni ku mel ni Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu bu doon ci njëlbeen gi rek man nga ne ak njëlbeenam ci sëriñ bi waaye moom mës la dakkal xam ngeen ko am istimraariye muy continuité la ci sëriñ bi xablal xëy bi ba'dal xëy ba lu ci nekk loolu def naa ma Mouhamadou Lamine Diop Dagana andi la ko ci Cheikh Issa Diène radiyallahu taala waaye pour nga xam ne bi Cheikh Issa di jóge fa mu jógee di jëm ci sëriñ Touba pas-pasu sax fi moom la amoon waaye yitte ju ko may bi mu ñëwee ci sëriñ Touba dëppum néeg bi mu bay bi mu daataan yegg sëñ bi yónnee na na wol ma Issa Diène mu ñëw mu ne ko mbooleem boo yendoo woon a bay ba ngoon wala nga yendoo liggéey ba ngoon nit dana cëru ñàkkub cëram baa mu falu woon fàtt xañu ak palam kon nag ñëwal delluwaat ku la gën a jege ci fajo fere yi ca Kajoor mu ne ko Cheikh ma Fall ak Cheikh Massamba Diop Sam mu ne ko ñëwal dellu def ni ñoom mu ne ko ba may jóg di ñëw pas-pas bi ma am mooy sax fi ba faatu waaye kon yittee njuree jooju may na ko ba diggante bu saa su la def waaye ba mu demee nag la ko sëñ bi digaloon mooy muy liggéey di siyaare si di indi addiye ci ko xam Cheikh saa xam na ne ca wow yoon rek la nekkoon di ci dox ñenn ñi mooy ñi nga xam ne dañoo jaayanteeg sëñ bi waaye sax fa moom ñooña nag boo demee ci Cheikh Mahamadul Bachir Mbakke radiallahu taala anhu nee na fa haulaayki yasluhu bi sabila tarbiyati sadida min fatmi nafsi an maladi dunia wal irad an il jaahi wal maal wa inkaabu ala al amal saalih wal ixlaasu niya fi kulli cheyin wa taxarra li maqasidi shara wa xikmatuhu fi kulli amr ñi nga xam ne dañoo sax fi sëñ biir nag toog fi ñooñu dafa am nag meneen mbir mu xew mooy ñooñu sëriñ bi da leen di tàggat ci woorloo seen bakkan ferloo seen bakkan ci lépp loo xam ne mooy bànneexu àdduna ak wan loo leen ginnaaw ay daraja ak i alal ak këpp ci liggéey bu baax ak jëf ju sel ak yéene ju mat ak rikk ku ci lépp loo xam ne du ngëneel waaye soobu nag ci yoonu charia wu mat wu leer nañ ci yëpp jëf joo xam ne dañ koy digal ñu mën caa jaar ci jaar yu gën a mat moo tax sëriñ bi dafa xam ñi ñëw ci moom ndax ñetti ñoo am alxuraan moo ko leeraloon fa minhum zalimun wa minhum muqtasidun aminu saabiqun bil xayraati kon képp ku yaru nit ak di tàggat faaw nga xam ñooñu ndax ñooñu la yàlla doon la woon téere ba mu koy le su ma awras na kitaaba ladina stafayna min abadina fa minhum zalimun wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bil xayraat sëñ bi ci boppam nag dafa xam muqtasid xam ki nga xam ne moo nekk zalim nekk xam ki nga xam ne moo ko saabiq bil xayraat yi moo tax bu dee zalim bi dégg nga la Cheikh Ibrahima Diop am na wax fa kam zalimin wala wasara an qada zahrahu falamma ataaka saara adlan bila wazar bari waa na koo xam ne ku taq la bari ayib ñëw fi yow Serigne Touba nga fóot ko ba defar ko ku xool sëñ bi xam ne daana jël do koo xam ne weneen melo nga nekkoon gàkk-gàkk ak taas sëñ bi raxas la ba nga set booy pratique diine yaa ki dàqoon a jàng yéen bokk aw doxin kon ku déggoon yooyu la moom Serigne Touba moo tax lam waxoon ca téeréem boobee da te xam ne da cay jàngale ñi nga xam ne mooy borom xam yi nga xam ne ñooy tàggat bakkan mu ne gaa yu baax yooyu kullu min al xawm cheykhun aalimun wariun minhum murabbin bi adkaarin wa xaalaati minhum muraqin bi xaalin wahdaha abada minhum murabbin muraqin bi isharati am na ci gaañoo ñoo xam ne gaa yu baax yi muy ñi nga xam ne dañ daan tërbiyee di tàggat ni ñi ay sëriñ yoo xam ne borom mi xam-xam lañ waaye ñu sàmm lañ ñenn ñi azkaar ak xaalaat loolu lañ daan def mooy di tërbiyee nit ñi ci tudd yàlla defe naa bi xaside yi ñëwagul wax naa la ko ni ñu daan sikare gis nga bi xaside yi ñëwee léegi tudd ngeen Cheikh Issa Dieng radiyallahu ta'ala bokk na boo ko tuddee da nga tudd Taysiirul Asiir waaye boo tuddoon Serigne Balla Faali jangit da nga tudd Jaalibatul Maraaxibi kon loolu li muy tegtale rek mooy jëmmi sëñ bi ci boppam ni mu daan tërbiyaa ci ay azkar waaye ni mu daan tërbiyaa ci ay xaalaat waaye ñenn ñi nag mu dañ daan yare rek ci xaala melaw kese rek ñenn ñi nag daan yare ci ay isharaat muy ay junj nga xam ne loolu loolu am na ko ko doon tagge Serigne Saliou Mbacké naan rabbaahum raqaahum suma awsalahum ila azizin muizin bil isharati Serigne Saliou yar na gaa ñi tàggal leen ba yeggal ci boromam waaye ci ay junju rek kon al isharat ak alxaalaat ak i adkaar bokk ci liñ daan tërbiyaa nit ngir mën a egg fa mu mën a jëm ca wi gën a mat moo tax Serigne Touba wax nag ne li yen xaada an jaabun yufuzuuna bil muna wa ma aqani an shukri mawliyaay asbaabu kafaani xabidun maanix jumlatan ida wali qaada ahbaban bihim usuru nuska gis nga bi mu tàggatee ay catégorie mbaam ko ba noppi nee na yàlla daf maa woomatali ay an jàpp gaa yu baax yu sell ndax moo leen tàggat tan bàyyi xel ne sëñ Tuubaa li fi moom la def ci mag ñi ndax sëñ Tuubaa moo wax ne damaa egg sama boroom galfan lu mu ma jox ma geestu jox nit fi ne li ci loxoy Cheikh Issa Diène cërub yàlla la ba mu jox sañ Tuubaa mu jox ko Cheikh Issa Diène radiyallahu taala te loolu defe naa ku xam yàgg nañ ko nettali bi sëñ Tuubaa waxee Cheikh Issa Diène na ko bisu bi yàlla sama boroom may na ma ñeenti téeméeri may ak ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne wàllu yu jëkk amu ko wu ma jamonoonteel amu ko wu ñëw sama ginnaaw amu ko saalixu na yëpp ko xemmeem waaye man képp la ko yàlla jox Seex Isaa ne ko ëskay ne ko may naa la ko kon loolu da ngay gis ne kon cërub yàlla bi fi moom moom lay joxaat ñi nekkoon ci moom waaye loolu ba mu ko waxee dana ko xoolal Isaa Jenn xool may yi nga xam ne boo àddadee Isaa Jenn 444 yooyu lay doon kon day bokk ci anjaab yi nga xam ne ñi xam ne yàlla wammatal na leen ko waaye kafaani xafidun maa ni wali xaada ahbaban bihim ushiru nuska yàlla womatal na ma ñoo xam ne ci ñoom nag lay feeñee topp gii may topp yàlla borom bi subhanahu wa taala ak yu baax yi ma doon def ci loolu lay feeñee yar googu mu leen doon yar nag ci di leen tàggat ci meloy biir di leen tàggat euh, ci meloy biti nga xam ne benn bi day nekk bil xidma muy di leen liggéeyloo nga xam ne bokk na ci loola boo gisee mag ñi ni ñu séddalikoo woon ñii alxuraan la leen sëñ bi doon bindloo ñii xasiide yi la leen doon bindiloo ñii daanoonu bay ñii daanoonu taxaw ci ay buntu ñii féete woon nangam nga xam ne ku sëñ bi ko organisé woon la bokkul ak ñiy sot daa bokku la ñiy sot xalima ñiy soos daa ak ñiy sot xalima bokkul ak ñoo ñëpp kenn ku ci nekk fi la sëñ bi féetale woon ci ay may féetale woon fi ab cër ci tàggatu googu loolu ko yàlla jox nag gaa yooyu mu doon tàggat bañ mel ni ñu war a mel ci di leen liggéeyloo ñooñu boo demee ci bay xaw bi ma jaxate kala waxoon na lu mel noonu murabbuuna qad qadu min absaarihim ghadda ka aswaatihim hatta yazunnu maa marda nee na sëñ Tuubaa gaa yi mu doon yar da leen a tàggat ba koo ci gis day yaroo yaru ba mel ni dafa wopp maanaam mag ñi dañoo noojoon dammoon seeni cër ba ami teggin ba koo gis defe ne dafay wopp nee na day damm ab gisam du bay du bayal ab xoolam fu ko soob waaye day wàcc ay kaddoom waaye it yemu ca loola nee na kenn ci ñoom buy dox ci mbedd ba yam ci jàmbur bu jigéen dañuy jadd yoon wa tafu sori lool waaye nag bu leen sëriñ bi joxe ndigal ba ñu tabb ci xuri ndigal ya ba seen semmiñ ya seen jës ya dal nee na da defe ne ay gaynde ñoo nekk ci digg xur yi nañ koy jax-jaxee mu ne giñ naa ne bu fekkoon ne sëriñ bi joxoon na leen ndigalul ñu dem ca réewi nasaraan ya danañ leen jax-jaxee loolu kon wane na melokaan woowu ñu amoon ñooña ñooy ñan nag ruhbaanu laylin masaabihu zalaami lahum wa fi subhi wal masi azkaaru awraadu bu fekkoon li guddi la ñoom ay biddiw lañu ay làmp lañ ay projecteur lañ yoo xam ne yu mat lañ ñoom ñooñu nga xam ne lu na da ban kitaaba la foo leen fekk ña ngay jàng téereb yàlla borom bi subhanahu wa taala suma lahum ilal masajid tardaadu fa tasdaadu waaye foo leen fekk it ña ngay baagante ci jàkka ya nga xam ne sëñ bi da leen a yar ci jaamu yàlla ak ak liggéey ba li ci moom moom la defoon ci mag ñu baax ñooñu kenn ku nekk yor ko ba mu noppee ci ñoom nag looloo waral nag tasaaroo barkeb may yàlla googu dott ci ñoom ba kenn ku nekk nag foo nekk nga fay wéyal di yar di tërbiya di tàggat di defar aw nit looloo taxoon bu ne Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu boo demee sëñ Mouhamadou Lamine Diop addaga nii ba muy wax dane ba muy lim di ko portale dane bokku na ca mooy bi wax ci jumaa ja gaa yi bokk na ca murit buñ xam ba Cheikh Issa Diène mi nga xam ne yitte ju rëy ju kawe la am waaye la ma ci jubloo wax rek mooy ba mu egg dane Cheikh Issa Diène mujj na ci njaareem moo nekk xutwatal jamia maanaam mbooleem ña fa nekk moo mujj nekk seen roy teef moom Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop almachari nee na Cheikh Issa Diène am na ci mart ci maqaamay tërbiya loo xam ne kenn mësu koo lamboo ba mujj Cheikh Issa jenn doon ku ñëpp xam mu daj fépp foo ko tudd xam ko nee la ko may loola it mooy yoonu tërbiya woowu nga xam ne sóobu woon na ko tërbiya googi noonu lañ ko jëlee woon ñoom doon ko doxee ci sëriñ bi sëñ bi di leen ci yar di leen ci defar looloo tax mësunoo mën a looloo ko mayoon ak nooy akuk nongu akuk tabe ba tey jii ab lamp la ci yoonu murit boo xam ne ku bëgg a tegtalu ci yoonu yàlla te doo réer faaw nga jaar ci yoonu Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu waaye moom it nag tarbiya googu la doon tarbiya di tàggat aw nit di leen yar di leen defar di sanc ay dëkk ndax dafa am ci mag ñi ku wax sëñ Mouhamadou Lamine Gaye nee na doomi soxna muy ab sëriñ doomi soxna bu sëñtu réer bu jëngul taq bu liggéeyut loof bu soog buur yàqu loolu taxoon mag ñi xamoon loolu ba sanc ay dëkk ñaata dëkk la Cheikh Issa Dieng radiyallahu taala an sanc ci biir réew mi nga xam ne te bu koy sanc lañ lañ fay def mooy tërbiya aw nit nu ngoo liggéey nu ngoo jaamu yàlla ndax Cheikh Issa Dieng moom bokk na ci chaara muy symbolam mooy liggéey ndax Serigne Touba moo nekkoon isa jenn ba amoo taalibe bu dul liggéey mu ne ko déedéet mu ne ko boo ko amee wàcc ko ndax ku dul liggéey neexut a dimbale ku xam Cheikh isa jenn xam ne ñooñam ay liggéeykat lañu tàggat na leen ci waaye ay jaamukat yàlla ndax yàlla taw féexale na ko penc mu mu am boo demee fekk fa juma kon li Cheikh Ibrahima Diouf almasir wax ne dañuy jàng alquran waaye dañuy taxawal jàkka yi di fa jaamu yàlla lool it melokaan la daaray tërbiya it mooy tàggat aw nit di leen defar waaye daaray alquran ji da cay ànd ñu boole nun koo liggéey loolu melokaan wu mat la woo xam ne yàlla jagleeloon na ko Cheikh Issa Diène radiyallahu taala yar googu doon yar ak tërbiya it looloo tax sëñ Touba seeral ko yéeg gi gaay yu baax yi di yéeg ndax buñ la gërëmee moo lay may nga egg ca daraja ju kawe ya maqaama yu rëy ya te doon góor yàlla moom nit mën na koo wax wala doon wàlli yu nit mën na koo waxal sa bopp waaye sëñ Touba seeral ko ni lu jafe la te sëñ Touba moo ko seeral Cheikh Issa Diène radiyallahu taala muy keroog ba muy gërëm taawam bu baax boobu Serigne Bara Diène na ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la Mouhamadou Lamine sa baay Issa jenn gërëm na la te ci góor yàlla yi la bokk kon loolu day mel ni rek wane na jëf joo xam ne ju mat la aw doxin la woo xam ne wu sell la wu mu am am tawfiix yu bari sëriñ biit wax nañ ko léegi ak defaroom moo tax sëñ Tuubaa doyloo ko ndax dañoo wax ne ku bëgg a ànd ak ñëpp da rafet njortu ñëpp ku bëgg a ànd nit ki nag da ngay defar si jikko boo bëggee ànd ak nit ñi dangay rafet njort ci ñoom waaye boo bëggee ànd ak nit ki nag dangay ngay defar sa jikko ci moom tey jii bu fekkoon ne du benn liggéey liggéey bii ñu nett li ci njareem muy jumaa njareem nga xam ne ci jamono bu jafe lañ ko doon liggéeyee li jëkk a nekk mooy pakk bi jumaa ji nekk Cheikh Issa Diène ko jënd ci alalam nga xam ne ñeen fukki dërëm yi ngor du la ko Cheikh Issa Diène radiyallahu taala jënd léegi jooju tiyaaba pakk bi jumaa ji taxaw te sëñ Tuubaa moo ne woon bi jumaa ji noppee misbaax ahlu sama wa najaatu ahlul ard waa asamaan lamp bi leen di niital mooy jumaa njéeréem waa suuf seenu texe mooy jumaay njéeréem léegi ki dindi pàkk bi ñu teg ko fa nag waxuma ak liggéey jumaa ji kon kooku ab cëram ak teyaabam ak yoolam lu muy toll waaye xoolal bi sëñ Tuubaa di joxe ndigalul jumaa jiit lim ko ci wax moom Cheikh Issa Diène radiyallahu taala ba mu nettalee xissa ba ca maa Maayomba muy jàkkaam jooju mu taxawaloon te tubaab bi ñëw sànni bant ya te keroog sëriñ Tuubaa taalif raditu anil mawla waaye gis nga ba ko ba muy agsi ci masjid yi Raxba la ko yàlla may jumaay Touba ak jumaay Njaareem kere bi mu koy nettali boppam sappe sa ca ginnaaw juróom-ñaareelu sappe fara Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu sëñ Touba dafa càppandaay bi mu koy wax waaye bi muy daaneel daal sukk bati wóomi joxaañ loxo ba ca ginnaaw na yàlla ak rasulullahi nag Issa jenn mais la ma wax ne ñooy jëw ni bi kon loolu day wane ne loolu jikkoom ak defaru ko Serigne Touba defar waaye xoolal ko ko yaatal loolu ci ngay gisee liggéey boobu rek ana Cheikh Mandoumbé tudd nañu ko léegi téeméeri junni la sasoo woon at mu jot te ku xam ak tërbiya xam seex Cheikh Bandoumbé Xabbaan nga xam ne sant na Mbàkke jaay naw santam soppi na lu ne ngir jëmmi Cheikhul Khadim waaye loola yi du ca yem bi ko sëñ bi joxee ndigalul jumaa ji mu di ko liggéey te aw turam du ca fay mukk ndax la ko cay war a indil gàllankoor sëñ bi ko ci dindi loolu sëñ Sidi Naar Jenn mi nett na ma ko mooy bi ko sëñ bi joxee fukki dërëm te laajaat ko ko ne ko ana sama tuut sa mu lamu ki wasam jox ko ko sëriñ bi ne ko ba dama bëgg nga am ndam ci jumaa ji loo xam ne saw tur du ci fay mukk te sama tur si boo ko ci defoon kenn duutu la tudd loolu la doon bañ loola yi tey xoolal diggante Cheikh Issa Dieng ak Cheikh Balla Fally Dieng radiyallahu taala anhu nga xam ne carnet bi nga xam ne moom la donga yi doon yor trésorier général bi moo nekkoon Serigne Balla Fally Dieng waaye defar gi Serigne tubaa doon defar dooy na ci Serigne Touba nit ñëw na ne dama bëgguma defar mu ne ko defar taqoo te amatuma jot Balla Fally defar nañ ko loolu doyoon na xaas ci moom Serigne Touba moo waxoon ne kër gu mag du ñàkk mag te Balla Fally mag la moo tax mu dëkk euh, kër gu mag ci njareem doyoon na ci xaas ndax loolu bis Serigne Touba sëñ Balla Fally Dieng da ko yónnee addiyee Serigne Touba na boo leen demee neel Mor Balla mu soob leen mu naqari leen taw anaw kër xën danaa leen tabbal àjjana ndax damay jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba mu gërëm ma may ma leen may jaamu yàlla ba mu gërëm ma sarax ma leen may jaamu yàlla ba mu gërëm ma jaay ma leen bu ma neexoon ba leen ngeen di rata gaaye di rata gaaye di rata gaaye ba faatu ma tabbal leen àjjana te du naqari rasulullaay bu ma neexoon bàyyi leen ngeen ca yoon ma di jaamu yàlla di jaamu yàlla ma tabbal leen sawara te du naqari waaye du leen bàyyi ngeen di rata gaaye dama leen di teg ca yoon ma ndax loolu moo neex yàlla ak rasulullah loolu kon jagleeg Serigne Balla jag jagle mu am ko waaye bokk na ca it màggal gi nga xam ne nga see sëñ Ahmadou Diop Paxa ba bi mu fi mujj di bàyyiku day reyaale sëriñ Balla Fally Dieng am xar kon loolu li muy wane rek mooy mag ñi sëriñ Touba defaloon ñooy modèle ñooy delluwaay bokk yi lii waa jamaa yo bi def mooy taxawaay bi jot ci réew mi gis gisee bu ñu delloo si siwul ndaw ñi wax leen li ñu doon wax leen li ñu xam wax leen fi ñu bokk da nga topp koo wër topp da nga doyee dil koo wër ta doyee dil muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu